ci biir dañuy ñaan ngeen abonné activé seeni cloche de notification ngir madame mën suñu vidéo temps réel ci làngu ko politique ku ne gis na ne li fi jot a xew ginnaaw bu ñu ndombol tànk ñenn ci ñi nga xam ne ci élection gox goxaat yi ñu daal di def li nga xam passation de service ña fa nekkoon daal di yëkkati li nga xam ne moom moo 16 ba jox ko ña leen ki nga di maire bu Médina ci coalition gëm sa bokk bopp bu Bougane nek directeur général euh, bu euh, des médias mon Bamba Fall nak ci yile élection gis nañ mu yëkkati ay kàddu yu nek dal di koy yak euh, ki nga xam président Macky Sall ak ñooñam la ginnaw élection yi buñu ko falé mu at maire ci Médina ginnaw bu mu ko doon jonganti ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba mi nga xam mom mo faré won ci président Macky Sall Bamba Fall daal dinay transhumé war ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany wan ko ginnaaw dem fekk ji njiitul réewum Sénégal di président Macky Sall ci ab laaj boo xam ne askan waa ngi koy sampan lan moo war a mën a jaral Bamba Fall mile mu dal di wan ginnaaw njiitul gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany ci ay commentaire yoo xam ne itam ni ñaa ngi koy daal di ah, biral ne moom Bamba Fall président Macky Sall daf ko dal di dikk ministre rek moo tax mu dal di war a mën a war ki nga xam ne moom moo di ah, Yüzde sen diyece gede vayi kuni xamdani